asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bu muy TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen di baalu xaq ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfiq ak saadatu daar ñu ngi koy sàkku ci yéen mbokk yi tey dañoo dikk ak yéen ci gént di julli xam ngeen ne baatub julli daanaka ci lañ jëlee sax ñuy tudde ab julit ndax jaamu yàlla gu màgg googu ñu tudde assala te mooy juli julli nag boo koy jàngat ci ñuy tudde luxatan maanaam ci cosaanal baat bi ñaara day tekki ñaan moom baat boobu nag tudd nañ ko téeméeri yoon ci alquranul karim kon nga xam ne baat bu màgg la ndax ni ñuy tudd lu bari rek day wane fonk gi ko fonk ah, julli nag jëmmi julli ci boppam muy tegtale ak jaam jaamu yàlla wala ak jaamu ci xeet yi nga xam ne weesu na yàgg na naka jekk doomu aadama daana ko def comme ni nga ko xamee ci aj màkka wala koor wala ci julli rawatina ci diine yi nga xam ne ba léegi sax daanaka boo dee diine juif wala christianisme wala yene diine boo jël rek am nañ seen xeeti juli wala boog seen xeeti koor gu ñuy jëfandikoo kon nga xam ne lu jiitu la njëkk lislaam ba ci yonent nga xam ne sax yàlla wàcce woon na leen amoon nañ ay julli inja juli seen maana di ko wane ak jaamu yàlla waaye nag ci anam bii nga ko xamee muy ci lislaam ci nii ñu koy defee ak ci waxtoom moom mosta am njëkk lislaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy ci façon bi ñu ko defee ak forme bi ak waxtu yi ndax li tegtale ne euh, julli daana am alxuraan dikk na ci fi mu waxee ne wa ma kaana salaatuhum inda albayti illa mukaan wa tasdiya fii day wane day day day day wax ne waa Quraysh ci ayaamul jaahiliya ma ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw ñu daa jaamu xërëm ñoom nañ daa jullee ca Kaaba ga dañ daa walis aki i tàcco loolu la alxuraan di wax fii kon juli wala jaamu yàlla lu yàgg la ak ci façon yi nga ko daa defee waaye nag ci anam bii nga ko xamee ci julli ci lislaam moom mësee su koo xam ci njëkk ci arab yi mësee su koo xamit ci njëkk ci yeneen xeet bu mu mën a doon dëgg la ci diine yi nga xam ni muy juif wala christianisme wala yeneen nga xam moo ci gën a siiw am nañ seen julli gu ñuy julle waaye wuute nag julli gi nga xam ne moom na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñu yonent bi sallallahu alayhi julli nag mu bokk ci ponk lislaam yi gën a màgg te muy julli juróom muy farata ci bépp koo xam ne nee nga jullit nga te muy sërite boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ko jëlee ci borom bi subhaanahu wa taala ci guddik laylatul isra wal mi'raj direct ci borom bi subhaanahu wa taala te guddi googu xewoon eh, at njëkk yonent bi salaam te gàddaay jëm Madina te julli gi mu njëkk julli moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne julli tisbaar la julli googu sax nga xam ne moom la bàyyi ko moom la jële woon ci guddig won wal mi'raj xam ne ci borom bi subhanahu wa direct la ko jële woon wax nañ ne juróom fukki julli la woon waaye ginnaaw bi muy wàññilu muy wàññilu ba juróomi julli yi ñu ko xamee muy juróomi julli yi ñu koy def ci juróom waxtu yi loolu nag alxuraan dajale na ko muy julli bëccëg ak julli guddi fi mu waxee ne wa aqimi salaata tarafayi nahaari wa zulafan min al layli tarafayi nahaari man nga ne mooy julli fajar ak tisbaar ak tàkkusaan zulafan min al layli man nga ne mooy saati layli mooy waxtu guddi yi te mooy timis ak gee koy muy julli guddi ak bëccëg julli nag lu fu lu ma jaamu yàlla gu am solo man nga ne jaamu mooy jaamu yàlla gi ëpp solo ci ab julit ndax dafa bokk ci ponk diine ndax ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam as-salaa imaadu diin maanaam julli mooy pilier lislaam maanaam lislaam bu den kër guñ taxawal la julli mooy poto ba koy téye kon mel na ne ku ko bàyyi rek bàyyi nga kër gi màbb te julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna awwalu inna awwala maa yuxaasabu bihi al abdu yowma alqiyaama min amalihi alsolaa nee na bis bi yàlla càmbar jëfi jaam yowma alqiyaama li muy njëkk a càmbar ci jëfam mooy julli te boo koy xool nemmi ko ci alxuraan da gis ba tàyyi ne moom julli fu mu ko tudde rek day tudde tudd yàlla wala mu tudd ay jëf yu baax julli ci boppam borom bi subhaanahu wa taala dañu ko dénk ñu koy wattu ñu war ko wattu saa yu ne ak fuñ mën a nekk borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg ñu koy joxe moo xam ci moo xam ci tukki wun alxadar wala boog moo xam dañoo tukki moo xam dañoo feebar moo xam feebaru moo xam ñu ngi ci jàmm moo xam nekku ñu ci jàmm lépp borom bi subhaanahu wa dafa bëgg ñu koy joxe moom juli juróom yi ci anamam yu wuute moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ju'ilat qurratu ayni fi salah maanaam sama mbégte mi gën a màgg yàlla mi ngi ko def ci juli moo tax waxtu julli bu masaana jege yonent bi day bég woo Bilal ne ko rayyixna bi salaati yaa Bilal maanaam na ñu bégal wala na nga na nga feexal ci xol ci nodd ñu julli kon julli ci boppam leer la goo xam ne day dox day feeñ ci jëm ji koy def ci digga mag borom bi subhaanahu wa taala muy leer guy tàbb ci xolamam ci xolam wala leer goo xam ne day fees ci kanamam day leer goo xam ne sax day jolli ci bis bu faatoo ci xabroom wala bis bi bi muy dekki ba borom bi subhaanahu wa taala di ko laaj yooyu yëpp julli yim daan def leer lay doon buñ la laajee kon gan jaamu yàlla moo gën ci jaamu yàlla yi man ngaa far wax julli ndax julli kat mboolem jaamu yàlla lépp yëpp la boole ba ci tudd yàlla yi nga xam ne sax moom na borom bi subhaanahu wa taala wax ne wala zikrullahi akbar maanaam tudd yàlla moo gën a màgg julli ma nga ci biiram kon julli dafa booleeg tudd yàlla ba noppi boole koor ndax xam nga ne ku julli du lekk du naan boo ko defee si julli yàqu ba noppi julli dafa boole jaam jëfi malayka ndax malayka am nañ ci ñoo xam duñoo sujjoot duñoo sujjoot rek te duñ sigi mukk di jaamu yàlla am ñoo xam ne dañoo rukkoo am ñoo xam ne dañoo toog te julli mbooleem jëf yooyu yëpp danga koy boole kon man nga ne julli mooy jaamu yàlla yi gën a màgg ba ci sikar si nga wax ne sax borom bi subhanahu wa wax ne moo gën a màgg daa dugg ci julli ba noppi ngay booleeg yeneen jaamu yàlla kon moo tax julli gën a màgg lépp te tamit julli mooy jaamu yàlla gi nga xam ne waxtu woo taxawee rek di ko joxe xamal ne yaa ngi jàkkaarloog sa borom subhanahu te waxtu woo sujjotee xamal yaa ngi gën a jege borom bi subhaanahu wa ndax yonent bi wax ne wax na ne fi jaam gën a jege boromam subhaanahu wa taala mooy waxtuum su jootee kon jàppal ne juli moom day taqoog julli bi ba faaw ba keroog muy faatu wala keroog muy wala boog muy taqalikoog sagoom maanaam mu ñàkk am xelam loolu nag bum tee nga ràññee ne am na ñuy julli nag ngir farata gi ko borom bi subhaanahu wa taala farata te mënta farataal te te te ñàkk ndax faaw da ko war a joxe ak li ñuy tuddee kii julli dëgg-dëgg julli muy salaatul xaashiin ñi nga xam ne julli dañ koy joxe ni ko borom bi subhaanahu wa taala bëggee ci li ñuy tuddee ak xudurul xalb maanaam teewal sa xol ak mbégte bi ngay am ngir jàkkaarloo ak sa borom subhaanahu ndax yaa ngi taxaw ci kanam borom bi subhaanahu wa taala loolu mbégte mu rëy la mu ànd ak xëy ba ca war ak tiyawaay ga ca war ak ak xucoo ca war moo tax borom bi subhaanahu wa taala wax na inna salaata tanha anil fahshaai munkar kon loolu martaba la ci julli mu wax ne wa innaha la kabiratun illa ala al xaashiin kon julli képp koo xam ne yaa ngi koy rëy def war ngaa xoolaat sa bopp ndax day jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla gu màgg la te képp ku wax ashhadu an laa ilaha illallah suñ borom gàll na ko ca kaw kon mbokk yi gént jullit mu bokk ci li nga xam ne day dalal jullit bi subhaanahu wa taala di dalal sax yow sa mbokk mi nga xam ne dafa nekk barsaq ñaare boo ko géntee muy julli loolu war naa dalal sa xel yow it boo gënte di julli it war naa dalal sa xel ndax ak jaamu yàlla la goo xam ne da ngay jàkkaarloog sa borom subhaanahu wa taala te moo la ko sant waaye incha allah dana dikk ak yow nag ci may la ci ay gént di julli ndax moom it bari na lu muy tegtale moo xam kuy liggéey yàlla la moo xam kuy jàng xasida la moo tax moo xam kuy dafay salaatu ala nabi la moo xam ko am aajo di ko ñaan gént di julli ak ay façon yu wuute wala gént di julli te jàpput wala yu mel noonu waaye nag loolu ci beneen jataay lay doon incha allah ñu ko yàlla maye kon ngay wéy di abonné ci chaîne bi ak di ko tasaare ndax bokk na ci li koy dundal wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu